nga dem police bi nga xam ne liggéeyam mooy enquête yow nga ne juriste nga inspecteur des impôts et domaines xam ni enquêteur boo ñëwee bu la laajee da nga jox ay firnde mu ne moom ay firnde yore na ko waaye ba ginnaaw ay juum IGF IF yooyu jaxasoo woon waaye tribunal la koy yóbbu te xam na ne daf ko war a jox enquêteurs yi waaye yow loo yorewul noo koy joxe.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 sa waay yàlla ko weer ci weeri koor wi mais ba mu ni dung c'est extraordinaire gàcce gàcce ranam gii du ko mas di feebar feebarlu bay def ay perfusion yoo xam ni xëy na alaxira la mooy amul amul ci àddina bi ñuy wax mu génne benn certificat médical jour bi mu demandé renvoi moom avocat nii bi ko alkaati yi jàppee noonu muy ne day taal dëkk bi ñu ne ko nii ngay jaar mu ne nii laay jaar te góor ca wax ja moom moo ne woon amul doomu aadama bu ko mën tere teree jaar fi mu a jaar fen wu rëy am na ndax fi alkaati yi bëggoon jaar dafa par force fena fena fena bu rëy fen bu ponk la noonu fen bu pataa sa fen rek fenn ba nëb alors certificat boobu ku nekk ci parti moo ko bind de ku ñuy wax docteur Cissé ba ko bindee ñu war ko juge bi ma ne ma xool ñu ne ma oh commencé naa attaqué ba ma xoolee gisuma ci benn bis bis bu ko may ni ko bis bu war a noppali ko amul ITT docteur bi ko bindaloon ni moo ko seet ci biir tribunal bi. docteur boobu moo ni yaa am na yu koy metti dañ ko xaw pamti pamte mënatul fekk audience waaye ba mu demee ci clinique bu docteur ñaa bi ni moom defal ko benn acte médical yow kuy bëgg a dee bañ naa bëgg a dee France dañ la empoisonné dañ la bëggoon assassiné dañ la bëggoon a rey nga nekk hôpital ay fani fan kenn laalu sa yaram aucun acte médical n'a été posé sur lui ah sa waay ñeme na yàlla feebar bu rëy dañ koo empoisonné dañ koo poson beneen bi dañ ko bëggoon a rey nga dem hôpital ay fani fan maa ngi ñëw de affaire bi kañ la woon le 16. certificat médical bi le 21 lañ ko defar certificat médical kon 16 ba 21 da doon taax waral wala lu mu wala da doon def salsa ah wala da doon fubal. wala da doon karaté da doon dóor ay may jéeri da ñaa est-ce am na ñu loolu jox ñu defar yaram yi oui oui dugguma ci détail alors Euh, damay wax ni liñ gis moom moo wane télé ma ni ku dee marché yaa tàggee sa bopp moo wane fa mu tëdd hôpital wane perfusion boo xam ne mënul nekk kon loolu du dara loo xam ne ñu ñoo ko génne moom moo wane moo wane taxawaayam jumtukaayam bu doy waar beneen bi manipulation bi moom ñëpp gis nañ ko dama sax ruslu gàcce la sa nawle ngeen war a jàkkaarloo bis bu yàlla sàkk mu ngeen mu ñëw yow jël nga avance nga fexe ba naa damaa foxo jeg sama loxo bay métteeg arbitre bi ñëw na arène bi fees na dell ñëpp di la déglu nga ne doo bëri sëggal bëre nga bañ bëreel nga bañ yow jël nga avance di lambar lambari rek di daw rek ni dëkk bi nañ ko taal yàq réew mi ndax lan waaye gars yi sénégalais yeewu leen kay wuy si tribunal fii mbaxana nekkee benn pour indi seen firnde wane ni Mame Mbaye Niang dafa luumal loolu jar na nga ne yéen ñëpp ñëw leen tribunal waaw looy ragal est-ce que Sénégal yëpp xañ nañ tribunal est-ce que militant Pastef yëpp xañ nañ tribunal est-ce que Yewwi Askan Wi xañ na tribunal loolu mooy dafa ñëw pour saboter tribunal pour tribunal du mu def liggéeyam xale yi taal dëkk bi waaye bu fekk fii réew mu am fulla état bu am fayda force de défense am fulla fayda won ko naka la ko dëkk bi bokk na ne taal ñu taal dëkk bi ku ko nar taal gis na ko nag xam na ni sama gars yi foofu ñu am jaaral nii nga bañ ñu ne la fa kat fa kat nga nekk fay lem lemay ñu ne la dugal fi yow bi naan gatsa gatsa léegi yegg terminus dinaa rey na fi sala wala mu rey ma yow ñu ne dugal fii kay bu dee reykat yi yow yow génnee nga doo dugg da ngay jaay sa bakkan gaa waaye loo fa wane maanaam Baye Diop commandé loolu. jibi waali jibi waali waaye ci yàlla ko toroxal waaye nañ jàll mais li ñu li ñu mën a retenir li ñu mën a jëli ci enseignement dëggantaan ci lii am nga xam ni gàcce gu rëy la pour Ousmane Sonko di ndam lu rëy pour Mame Mbaye Niang ak pour Macky ndax gàccee la war pour président de la république ñoo ne ministre am boo xam ne daf koo fonk ci bokk ci ministre yi Macky gën a respecté li muy nekk nekk xale ndax fulaam faydaam fii la démissionné di ko jéem a taxal ndax xam na ni masul def dara ba dara boole ak yéen. président ko doo démissionné man maa nekk chef de l' état xam naa li xew ci état bi masul laal ñaar dërëm ñi lay sosal bàyyi waaye sëñ Abdou Aziz Sy tabax yàlla yàlla di yokk leeram dindi tuuma daa baax dindi tuuma mooy toroxal seytaane te toroxal seytaane day neex yàlla toroxal seytaane day neex sunu borom subhaanahu wa taala dafa bëgg dëgg léegi gis ngeen ni waaw gis ngeen ni mën naaw ci kaw maag sama neveu ñoo <laughs> gis ngeen ni sa waaw gis ngeen ni enseignement yi ñu mën a génnee ci ci ci verdict bi ci procès bi gis ngeen ni Ousmane Sonko li ko tax a jóg mooy taal Sénégal reylu xale yi am fit nag yëpp Sénégalais leen bu ngeen deeyee xale yi seen yaay juraat dem leen dee bu ngeen deeyee seen yaay juraat man naa leen jaral ngeen dee yéen xale yu dof yi xale yi yeewu leen ku doon nalaw war nga yeewu ci waa ji di leen jël di leen utiliser bu leen ko nangu ndax nit ku fonkul bakkan la mu yokk ci bëgg a toroxal institution yëpp Ousmane Sonko mooy ki nga ni wax na ko keroog sax ci benn meeting nee na moom faalewul ay institution Macky Sall institution mu ne institution yi Macky Sall le président de la République, dans notre système constitutionnel, est la clé de voûte des institutions. C'est la première institution du pays. Et il est garant du fonctionnement régulier de toutes les institutions constitutionnelles de la République. kooku kooku ancien député booy waxee yéen En tant que qu'ancien député, ancien ministre, je peux bien vous parler du rôle du chef de l'État, clé de voûte de nos institutions. Dani, Ousmane Sonko wane na ni justice ak yeneen institution yëpp la yemale amul benn respect ci justice lu ne la yàq magistrat bàyyiwul benn juge benn procureur loolu pour lan pour sénégalais yi foog ni ëllëg buñ ko àttee àttee bi du jaar yoon ndax dañoo far ba pare kon moom ngi préparé psychologiquement ci maynu nit ñi ëllëg buñ ko daanee teg ko ay daan mu ne noo ñii Macky Sall lañ fi nekkal àttee démb bi wane na ni attekat bi nekkalu fi Macky Sall atte démb bi wane na ni lim noonu wax naan dañ koo bëgg tere mu dem élection loolu taxul jóg juge bi ndax juge bi bi mu attee ba pare xañu ko mën dem élection présidentielle xëy na xanaa beneen atte waaye ba bi appel nag am na beneen atte lay nekk loolu yàllaa xam ndax deuxième mi-temps mën na am avec entraîneur bi bu joxe instu kii yi joueurs yi gën bu ñëwee bu élié bi débordé centre Sadio Mané toj cax yi loolu góor wane na ni démb suñu justice dafa am indépendance mais moom moo fi taxaw ci fan yu new tagg ordre des avocats ak bâtonnier ndax bâtonnier moo taxoon mu am renvoi un mois lu kenn masul gis après ñu suspendre ma man Alaaji Diouf mu kontaan ci lool félicité bu baax ordre des avocats booba gaayam yooyu nga xam ne xamul lu leen dal bu ñu ma jëlee bu ñu ma ooyee ma jël ñu ne comment yow dañ laa dàq téléphone bu sonné dañ laa rajee ay yow dañ laa summi yow nekkatoo avocat boo bàyyiwul Ousmane Sonko bu sell bi xamoo ko lu daal Ousmane Sonko ku ko laal gis yow dee nga ba pare loolu lañ ma doon wax. xam bi ma gisee ba moom ak bi ma gisee ba xam ba keroog nee na ah, du yomb sama malaaka yegg si na du mën a yomb parce que malaaka ba am nga malor ci moom malaaka la ci réew sorole nit ñi waaye malaaka bu nekk am nga sa malarki ku ne xala ki lay faj mu ñëw ne batoñe moo ko ordre des avocats du ñu dara ñëw ñëpp a yem dañoo ànd ak gouvernement mais kii nit la batoñe bi nga xam ni moom du fodoree moom man mii moom ma ndax booba xalaat nañ li mu doon wax ci moom daa ëpp wala dafa bëri mu ko dar ci lool di ko félicité ba dañoo boobu félicité bi ñu renvoyé procès 16 février ba 16 mars ba dañoo boobu suspendre Ousseynou Fall avocat ci fanweeri avocat ak ñaar yi am man bi ma suspendre pour Ousmane Sonko bâtonnier baax na bi suspendre benn avocat bâtonnier baaxul bâtonnier daal bâtonnier Macky Sall la waaw est que Ousmane Sonko nii lañ koy bàyyi rek gars yi waa xale bi xale bi yëpp na nit ñi de Sénégal yi du ñu yeewu ci waa ji tey mu wax lii su wax leen lu ko arrangé rek bakkanam bi rek yaramam bi rek yaramam bi rek bakkan bi rek. mbëkkat bi rek lu moo ko intéressé leneen ñoru ko waaw euh, dafay baax ngeen xam lu tax awokaam ñu suspendre ko yéen journaliste yi ñëwoon ci salle audience yii passé gis ngeen Ousseynou Fall ni mu ñëwee song juge bi xëftal ko di ko yuuxu di ko ñii sa ginnaaw encagoulé muy force de défense yi nañ fi jóge laa wax tout kooku ne ko du yaa may wax li am ci audience man maa moom la police de l'audience je suis le président mu ne ko bu dal koy wax yu bon man démb dama saaga ndey ma ne ko baal naa la mu des sama di ma daggal saaga ndeyu tàng jër jër jër jër moom boobu nekkatul avocat de suspendé nañ ko ba pare mu sol costume bu rafet toog sama gi daal di ma saaga lu ma wax rek ma dégg benn saaga dal ma ne ko baal naa la yal na la yàlla may xoli muñ donc li tax ñu ko mooy ñàkk teggit gi mu wone tribunal bi réewane gi mu won tribunal ñàkk worma bi woon tribunal ñàkkal fayda bi ñàkkal fayda justice ak ordre des avocats bi xam ne faalewu leen da leen saaga suba ngoon faalewul bâtonnier faalewul conseil de l'ordre faalewul nawleem yi faalewul kenn kum faale li ko neex def ci def ci def ci nuróo nag ak Ousmane Sonko ceux qui se ressemblent s'assemblent dit ñi nuróo rek ñooy ànd Ousmane Sonko faalul kenn avocat boobu faalul kenn ordre des avocats nag bi nga xam ne tegoon na may daan man mii waxe yéen teg ko daan Ousmane Sonko nii dañ ko bëgg a néewal doole. waaw ñun suñu ordre kay kuñ ne da ngaa wàcc ñu tegaale ci raay bi loolu kay dara nekku ci waaye waaye waaye ku am fanweeri avocat ñaar jëli avocat France avocat Burkina avocat Comore avocat euh, Plan de Mars avocat Australie avocat euh, Singapour avocat Bangladesh fu dem nga fa dem nga ba Brésil wuti avocat waaw kooku euh, avocat manqué wu ko. avocat rapport waaye dafa tiit waaye nag léegi nag foofu laay terminé waaw gars yi leen di laaj waaw ku deful dara liñ la liñ la jëñ ne sosal da sosal nit nga ne dëgg laa wax est-ce na benn rek. boo ñëwee jëlu sa avocat da nga naan eh maa ne Mame sàcc la preuve baa ngi nii jox naa ko juge bi jox naa ko policier yi communiqué naa ko waaye bu dee da ngay kàcc joomu ngaa wax dëgg ñu la génneel amoo benn firnde nga ragal ju tëj la nga ragal dem élection nga ne wàcc na ci benn bi rayante pour man ndax tooñ naa te tooñ bi mën na ma ëllëg du ma dem élection tooñ naa tooñ ba metti te yoor mu dalay sama kaw ndax maa tooñ mën naa am suba du bokk ci benn élection waaw li ñuy wax ci tubaab léegi wax nañ ko nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude boo defee sa ñomme li nga reen sa loxo lay nàcc waaye maa ko def te kenn du ko wax di ko déet waay déet maa ko def te kenn du ko wax déet waay déet yaa ko def yaa sosal doomu jàmbur papaay jàmbur jëkkëru jàmbur ministre yu jàmbur yaakaaru bi kooku taxaw ni la lii sosal du ko nangu kay leeral ko nga bañ lànk parce que mënoo koo leeral waa jaru ngay rey doomu sénégalais waa ci lañ ci benn bi dee pour man dee leen pour man ndax bu dee bi dee yi bëree sëriñ si da ñaan maa mbay di ko bàyyil ñëpp ñaan maa ñu bàyyi fekk fukk juróom dee nañ téeméer dee nañ kii moo soxor yoonam ci ñuy kon nag tey li ñuy mën a mooy dëgg jolli na fen xalangu na maam mbay ca kaw waso ko ci suuf dëgg ca kaw fen ci suuf jërëjëf